c'est le slogan. Ah, ils sont là, ils ont le faire. Ils sont là, ils seen slogan di gannaaw yàq laa ñàkk ci jamono ju Sénégal di waaj campagne électorale ci la ñi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci distribution produit pétrole génnoon di amal benn conférence de presse ñu mel ni rek ñuy artu ngir sensibiliser ndaw ñi ci nu ñuy songee station d'essence yi. dañuy door ak bile campagne ngir gën a mën a ñaax askan wi waaye duñ ci yem ndax dinañ amal yeneen activité yi tax ba ñu gën a mën a gën a xamal sénégalais yi li tax waruñoo yàq station yi. li ni mel mën leen jural ay jafe yu mag. moo waral ci diiru campagne bi le ñoom ñi lee dinañ daldi teg ay film ngir gën a mën a wone impact yi le cette campagne solidaire commune campagne bi nag ay mbootaayu distributeur yu produits pétroliers ñoom ñoo ko sumb te fas yéene nañu xamal askan wi jafe-jafe yi nga xam ne ni mën naa tukkee ci li ñuy yàq station yi. lorsqu'on a ce de démarche. fas yéene nañ tamit amal benn caravane ngir wër Sénégal bi yëpp. fexe gën ko yaatal. dañ ko yaatal si suñu communication bopp parce que am nañ suñu stratégie bu war a daj secteur bi yëpp donc mën nañ ko gën a leeral mën nañ ko gën yokk pour sénégalais mën ci jot muy man muy ministre bi muy suñu support de communication yeneen yi mais aussi cible bi nga xam ne mooy cible jeune nga xam ne ñoom la ñu gën a bëgg waxal muy jeunes yi yeneen département ministère yi nga xam ne ministériel nga xam ne ñoom ñoo leen di gérer bu ñu tuddee sport bu ñu tuddee éducation wala yeneen nga xam ne dañ fee retrouver jeunes yi je pense que am nañu possibilité yokk ko ba foofu pour mun leen jaar si yeneen canaux pour mun leen jot incha allah. ci weeru mars 2021 ba juin 2023 lu tolloog 61 station service lañ daal di yàq 945 emplois yi nga xamante ni daanaka seeni borom liggéeyatuñ ak mille impacte yoo xamante ni tey seen dundin dafa daal di soppeeku.